asalaamaaleykum Ousmane Sonko bàyyil di ma tëkku doo yàlla da nga ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sa référence yonent bi daawul tëkk kenn yonent bi da jàngale ak di xamle waaye daawul tëkku kenn danga dem ba Casamance di cas di campagne boole di ma gaaruwaale ak di ma tëkku ndax li nga wax ñépp xam nañ ni man maa ko wax danga ni nag li ma wax bu ma ci delluwaatee nga tëj ma kaso préparer cellule bi may dem parce que maa ngi ciy delluwaat nii lii laa wax Sénégal dama ni leen Casamance la fa xew ba nguur gi ñëwee ba léegi dama cee am njàqare ñetti yëf moo tax ma am ci njàqare bu njëkk bi mooy waaye fupp ya fa nekk dañoo yëkkati drapeau Casamance drapeau rébellion bi te dégguma président de la république yee ci yàbbi dégguma Ousmane Sonko yëy ci yàb bi dégguma kenn ku bokk ci nguur gi ko ci yëy yàb bi loolu mosul am Sénégal beneen bi ci topp mu am jigéenu tubaab bu dëkkul ci réew mi bind livre di wax ni Casamance dafa war a am indépendance dégguma Ousmane Sonko yëy ci yàb bi dégguma keneen ku bokk ci nguur gi yëy ci yàb bi il a man ma def émission wax ni livre bi kenn waru koo def dédicace bi Sénégal te ndaw si fixé woon na datu dédicace Sénégal ba ñëpp xam ko kenn waxu ci dara il a ma dénoncé ko pour que ñu ni ñu mujj annuler dédicace ba daal di dootul amati ba pare daal di tere pour ñu jaay livre bi Sénégal ma ne loolu njàqare la ci man ndax livre bu mel noonu kenn mosoo xalaat bind ko ci suufu Macky Sall wala Ablaye Wade beneen bi ci topp ma ni général Kandé nga xam ni moom moo duma way fipp yi ba indiwaat jàmm ci Casamance nguur gi ñëw ñu yóbbu ko ñu yóbbu ko Inde affecté ko ma ne loolu. njàqare la ci man mais bu fekkee nag Ousmane Sonko loolu tax nga ni man da nga war a tëj kaso demal ci Google wala YouTube nga bind affectation générale Kandé nga xool intellectuel sénégalais li ñu ci wax xam man dama ne damaa am njàqare rek waaye demal Google wala YouTube nga def affectation générale Kandé nga xool intellectuel maanaam boo may tëj tey di nga tëj au moins deux cent wala trois cent intellectuels sénégalais yoo xam ne la ñu wax man jàll na bu baax li ma wax mais sa sa tëkku yi dafay wane rek singali bi nga ma singali tey leer na naññ ni bi nga may yóbboo deux jours garde à ñi lay waxal naan du yow tey leer na naññ ni danga ma singili te li nga bëgg taxaw ci temm mooy dugal ma kaso nee nga dinaa dem nëpp di ma tëj rëbës ba ma nëpp loolu nga wax Ousmane Sonko respectel justice Sénégal ngir yàlla yow premier ministre yaay tëj nit ñi ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñuy ba ñuy ba ñuy ba ñuy ba ñuy nëb rëbës respecté justice Sénégal justice Sénégal ay magistrat yu am yu am valeur ñoo fa nekk ay nit ñu baax ñoo xam ne école bi nga génne lañu génne xam nga ëppale woo leen nga taxaw yow en tant que premier ministre naan yaay dama ku ko def da ngay dem prison mel ni yaay tëj nit ñi te loolu mooy liggéey bi nga xam ne justice Sénégal moo ko war a def respecté justice Sénégal ngir yàlla ba pare Ousmane Sonko affaire Kandé bi bu fa amee kenn ku ñu ci war a topp mooy yow. ndax dangaa wax lu garaaw garaaw garaaw danga ni li tax ñu affecté Kandé yaa ko wax de dafa am rapport boo fi fekk boo xam ne nii lan la nga wax ni moo nekk ci rapport ba sax man sañu ko koo waxaat parce que li nga wax ni moo nekk te loolu moo garaaw pour kaaraange Sénégal xam nga da ni man li may wax li la ci métti mooy day laal kaat li may wax man non seulement laalal kaaraange Sénégal day défendre armée bi waaye yow li nga wax loolu moo laal kaaraange Sénégal moo tax li nga wax ni moo nekk ci rapport ba man du ma ko du ma ko nettali mais bu fekkee ni kenn lañ war a topp ci yëf yi mooy yow parce que rapport boobu au minimum secret défense moo ko moo ko protège yow nga ñëw la ca nekk nga ni ko tell ci penc voilà donc euh, euh, jërëjëf.